Fatima euh, tey fan lañuy ñuy commencé ci actualité people. kon nag asalaamaaleykum. <laughs> maaleykum <laughs> yaa mën kay. <laughs> voilà. aw de merci non international universel mondial. Aliou Sow jàppal ni ma loo ma wax benn day dellu si. ñam dellu si. allez bul topp ci yow. bàyyi papa ji dañu koy euh, door rek aw Konde ak euh, Carnet Euh, Ndeye Khady Ndiaye bu Sweet Beauté moom nag lañ ko doon dégg fan yi bari na lool gannaaw nag jafe-jafe wala problème yi nga xam ne amoon na ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr. Mhm. nee nañu salon wu dàmpukaayam boobule fa la xewee woon moom mi nga xam ne dafa nekkoon. en état accouché na ni kii euh, démb. Mm, doom bu góor te di fàttali rek nag euh, yoonu Sénégal wala sax euh, parquet bu Ndakaaru daf ko daanoo ñaari ati mm-hmm. waaye ba tey mi ngi këram lañ ci mën a jàpp rek muy information bi ñu ci war a mën a jàllale mooy moom fi ne nii am na doom. macha allah voilà di ko ñaanal rek mm, wér wér. Mm. góor wala góor la ah. nga ne kuñ koy tuddee kuñ ko war a tuddee. <laughs> xamoon naa ne yaay wax loolu góor boobu nag war nañ ko tuddee noonu la nag da nga koy sa da nga koy sa doomu ndey. ko xalaat ah, très euh, doomu ndeyam non doomu ndeyam sa baaraam foofu ñu dem. <laughs> ñu euh, wéy rek euh, jëmale ci leneen ni ki tey Aliou Sow xam naa waxtu wi da lay tënk ci actualité. Mhm. mais observateur dafa xëy am lu mu xëyee ci ñaari agent yoo xam ne GIGN lañ dañ leen teg loxo ci lu ñeel ay 2 mhm. milliards ci mbirum faux ci dollar la ñu leen teg loxo di fàttali rek euh, commissariat bu Saly moo amal lu ni mel teg nañ leen loxo ni ki démb di fàttali rek. wala sax kon ay gendarme lañ. ay gendarme ah ñoom la ñoom ñoom ñooñee la euh, teg nañu leen loxo waaye nag li ma ci mën a indi rek Aliou Sow balaa ngay jël. Mhm. mooy ñoom ñooñee euh, seen ay tur dugaluñu ko waaye liñ ci mën a jàpp rek kenn ki abitey la ñu gën ko xam ci Cooko. keneen ki moom turum bi daa doy waar sax keneen ki M Ndiaye ñu gën ko xam ci ayo ñoom ñooñee euh, teg nañu leen loxo waaye nag kenn ka nga xam ne moo nekkoon seen complice El Gomis da tudd El Gomis euh, kii Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Gomis macha allah <laughs> mbaa du bitëj ay Fatima bàyyi kaay ah. <laughs> baax na daal bon mais mais xam lu ma jaaxal lu ma bëgg am une précision rek mm-hmm. pour mu leeroon ko mm-hmm. mais bon peut-être ñu ko xam léegi. mais est-ce que dëgg-dëgg ay gendarme lañ. waaw parce que bu dee GIGN lañ mooy ay gendarme lañ. dañ leen teg loxo. te li tax sax ñu gën a euh, identi mën leen identifier mooy biñ leen jàppee ba dem di leen yóbbu ñoom dañ doon jéem a rëcc. Hmm. bi ñu rëccee nag ba daw. Hmm. ci la ñu jël seeni i ay euh, li nga xam ne mooy euh, jotoon nañu ko yor muy carte. Hmm. carte seen carte garde rapproché ndax nag kilifa gu mag la ñuy nekk di garde ci réew mi. muy lu doy waar kilifa gu kan la. seen carte bi mi ngi ak ñoom ak arme de service bi nga xam ne ñoom moom la ñuy jëfandikoo ci seen i bërëb liggéeykaay dañ leen affecté ay kilifa yu ñuy garder kilifa yu ñuy garder ñoom ñaar ñëpp voilà kilifa gi wala ñoom wala bokk ñoom ñaar ñoo bokk même kilifa bi ñuy garder te bu ñu wàcc di def ay njuuj njaaj ah kaa bi doy na doy na waar lu mel noonu bëri na fi loolu Fatima ñoo xamante xëy na dañuy am feneen liggéey mm. bu ñu wàccee di mbubboo loo xamante ne xëy na doonuñu ko ngir euh, mais deux milliards ci ci deux milliards ci dollars fan la war a jugee foo bie kan moo ko kan moo ko moom mm. te souvent li ñu koy li ñu koy dégg euh, scandale yooyu wala kawte fi sax dafa bari li muy am waxtu bi ci euh, réewum Sénégal jëmale ko ci ay phobie yu nu mel waaye nag bëgg na noo xam nag balaa suba incha allah mm. kilifa googu ñuy garder. kan la kan la. Mhm. te fii dinaa leen ko wax benn eh, ñaareel ba mooy ko mbir maa ngi ci eh, loxo yoon dañ koy eh, tegandi rek di wax rek nii. ñi nga xam ne ñooy ay force de l'ordre lañ ñoom sénégalais dañ leen nawloo ndax nag ñoom ñoo yor suñu ay kaaraange mhm. bu ñu demee ba leen di dégg ci affaire yi mën nañ ko dégg ci ay député comme li jotoon xew assemblée que yenn affaires yi faux passeport diplomatique yi yooyu mais lu ñeel ay koppar daal wala ay faux billets dafa di lu ñaaw loo xam ne nag buñ ko déggee ci kenn gis nañu riir bi nga xam ne Seydina Fall Bougazelli jot na ko fi am ba tey ku wax Seydina Fall Bougazelli loolu nga ci teg lu lu lu ñaaw la voilà mujjul fenn ñi ci kaso yi nag defuñu waxuñu nañ leen bàyyi ñu génn ñii mérité ñu tëj leen ñu ngi ci mbedd bi di kilifa kilifa lu yor seen ay oto yi cher seen jabar yi di dawal oto yi cher chaque jour nga ko fi nekk ci xew yi di baatare di def noo xam ne naka sudul noonu dañ leen bàyyi ñu génn mm-hmm. ñi ñu war a tëj ñu tëj leen loolu la bëri nañ fa Fatima voilà tey tey kaw tey yaa ko tudd ah, mais kaw Bougazelli bi nii mm-hmm. mais fan lan lay mujje léegi loolu loolu dafa nar a na saxaay ni définitivement. Mm-hmm. est-ce que fàtte après beneen nguur ñëw après ñu fàtte la réputation après ñoom seen njiit ñoom ñaari agent yooyu de. ki ñi garder après ban yan lañ war a mën a jël di gàll ko ci ndoddam même bu fekkee donte laalewu ci takkewu si hmm. xamaguñu après dañuy dem ba euh, kilifteefam day wàcc gradam bi mu am ci réew mi dafay dem ba day wàcc loolu de man bëgg ko xam ñu xaarandi rek fan la wànniti mujjee gëtam lu fa ruusal rek dinañ ko indiwaat est-ce que moom kilifa boobu sax moom yoonam mi ci est que moom yëg na sax li nga xamante ni moom lay liggéeyal daal fi mu ne nii moom hmm. en tout cas daal ay ñaari gendarme bu fekkee ni loolu lu lu confirmé la. Mhm. si c'est confirmé ñoom ñoom mënuñu def loolu yow ñoom kese. Hmm. am na ñu ñu koy seqal. en général ci kaw c'est une évidence. Hmm. léegi nag ñan la. Hmm. xëy na peut-être enquête bi bu buñ ko buñ ñi war a liggéey buñ ko mm. toppee mm. suñu enquête boobu xëy na peut a leeral mais dañu gis ni mm. affaire bu ñu kiyee euh, euh, génnee xaalis bi eh doo gis différence bi El Gomis moomu nag moo leen waroon jàppale ci ah, ci ci raxas bi ah, ah, xam naa dañ lay bàyyi nga toppal waaw <laughs> waa déet non non El Gomis kañ yow waxal kii waaw yow yaa sant Gomis nag waa déet non non non non déet non non non El Gomis kañ El Gomis El Gomis moom kay mooy. waaw de ma jax maa xool tour de table ko fi sant Gomis man. waaw yow la. moom El El ah. Gomis moom Cheikh Ahmed Tidiane macha allah borom tur bu neex bi. Mm, donc dañ lay dañ lay bàyyi nga jàll ci beneen point Fatima. non saa yoo nee El Gomis rek yaa ngi may xool. attention gars yi ñu ci enquête bi. dañ ma fii xool gars yi ñëw jël ma. gars yi ne ma yow gomis yow mii nangam bu bu ma xool. bu ma xool. bëgg xaritu njaay bu ma xool parce que man. waaw. voilà man bu ma xool. ok saa yu may xool rek wóorul enquête gars yi ko gis ko ragal. waaw Cheikh Tidiane tëj nañ ko. xool bee ooyof xool xool bu ooyof la ci ci ci mbirum police. waaw bàyyi di xool yi ma ko xamal da nga ragal police Ndeye. non man jàpp nañ ma fi ah. ñaata yoon. non loo xam loolu dama ndax da nga ragal police. non ragal ma police. Ah, man jàpp nañ ma ñaata yoon. waaye yow kii xool la rek. man non non non non non. bu la xoolee ko xulli non man jàpp yàgg nañ ma jàpp. dëgg la ñuy def rek nga war non yàgg nañ ma jàpp. Hmm. nii waa ñu fi jàppul bëriwul de. mi ngoog ñu dem rek euh, ci beneen point bi la yoon dañuy taxaw euh, munaas ndax nag euh, dafa am loo xam ne actuellement mooy def hmm. tollé ci réseaux sociaux yi gis nga son yi génn actuellement ci euh, YouTube bi sax. Mhm. kaawu audio fii tey ba tey day woy moo gën a ëpp moo moo fi gën a teg tànk son yu bees ku fi turne sa clip bu bees def ko ci nu mu anam bu mu gën a rafetee audio wu euh, Sala Eliman Lam mooy euh, ñaareelu soxna wu Eliman Lam ay audio wu ñu toll ci 30 minutes moo jot a génn gannaaw nag xam nga doomu Thione Seck daf doon takk jabaat mu ki semaine bi ñu génn di seet euh, Seydina Aliou doon takk doomu Awa Baba Thiam. Mhm. léegi nag euh, bi mbir mi amee Awa dugg de la woon. daf di koo xam ne ñoom Awa Baba Thiam ci ay information nee nañu soxna si Bougane la woon. ñeen nañu wax loolu ñeneen ñi nag li wax nag wax dëgg yàlla. Mhm. mënuma koo wax Aliou Sow. ñaaw na waaw léegi euh, moom Awa. bi loolu kese moo tax ñu tudd ko bi ci ci tudd bi sax nag li waral loolu yëpp bi mu bi mu amee mooy euh, gannaaw ba xew bi euh, jàllee dañu jëloon sala sala iliman laam daf ci amoon cër lam fa yebbi nag man na cinquante millions di dem. ak bàgg jama mooy dañ ko ndayale woon xale bu jigéen bi. ñu dem nag ba après coowal delloo. ma xaritu ndaw si la kon. xaritu ndaw si la ñooy ànd mais ñoom ñaar ñoo mujj nekk après di dëmmante ci réseaux sociaux yi ku ne bu wax vocalé yónnee sa morom keneen ki audio delloo. kaca des sala ak euh, kii quoi sala ak. Euh, awa waaw parce que audio wu sala yi moo ëpp. ci ojo yi nga xam ne jot nañu ko déglu déglu naa audio yi lan la xanaa dafa saf saf ah saf na kay affaire de jigéen rek affaire de jigéen wax yu wax yu doy waar di mhm. ko xamal rek ni daal dem na ba jiñ ko ni moom euh, judduwul ci sëy di ko wax ay kàddu yoo xam ne kàddu yu doy waar la yu yu yu doy doy waar euh, ci euh, moom Salla Sow mi ñu ne mi ñu mi ñu dégg ni ci audio yooyu mu ci wax waaye nag leneen Euh, mhm. kaw bugaan wala. Mhm. Mm, ñu des <laughs> ci leneen di di xam ne ni rek ni moom euh, doomu awa mi ñu mi ñu takk doomu awa baaba caam awa baaba caam dafa am doom ak bugaan. d'accord léegi nag ci am doom boobule ñu jël euh, doomu awa mayaat ko ki nga xam ne maanaam rakku Alioune sekk ak moom mi maanaam ja actuel jabaru Bougane ñoom ñoo bokkul ndey ak baay ndey ak baay waay Aliou Sow comprendre waaw léegi léegi en réalité euh, booy Aliou boobu rakkuwaali bi takk bi takk euh, bi takk xale bi mm. bi takk doomu euh, Awa Baba Thiam mm. kooku dafa am rakk waaw rakkam Bougane moo ko jur loolu ngeen bëgg wax ah, waaw mais loolu addu loolu waaw mais léegi nag ci loolu la ñu nekk di xasanteeg euh, xaxarante di am ay kàddu yoo xam ne jot nañ ko yëkkati c'est maanaam li ñu nekk doon defante lan moo waral lu ñaaw am na ci biir ak mm-hmm. it euh, xaalis ba nga xam ne doon ko indi discrimination bi nga xam ne am na ci géwél yi ndax nag gis nañu ku ci di tendance sa morom gis nañu après Mor Thiam ak euh, Daba Sey mm-hmm. mi ñu fi dalaloon bu yàggul di di di am ay kàddu yoo xam ne ñu ngi koy jot yëkkatante ku ne di siif sa moroom diw mooy seytaane la moo tax loolu c'est parce que dañu bëgg am ci weccit bi wala lan la voilà mais lu tax ñuy xëccoo ah, ah. gis na li nit ñi di gis ak li xew mm. mm. di wax mm. amul seen diggante. xëy na mais liñ ci liñ ci wax la mën a liñ ci mën a jàpp rek Aliou mooy euh, kàddu yu ñaaw yi nga xam ne jot nañ ko yëkkat ci ay audio yi nga xam ne dem na ba teeri ci toile bi dem nañu ba euh, tendance sa audio yi. entre euh, ak Awa. ak Awa Awa Baba Thiam Baba Thiam te ku ne Sala laam Sala Sow wax Elimane laam ndax nag euh, borom këram euh, ku ñu xam la ku ñu ràññee la ci réew mi donc bu yi demee ba am yàkkante day dem ba entre ñoom ñaar xarit dem ba mbir mi teerijee ci ci penc mi muy lu ñaaw lu doy waar loo xam ne yu ci bëri Aliou Sow mënuñ koo wax. Hmm, doy na waar loo xam ne bëri na li ci bëri bugaan moom. Hmm. ñu bëri ñu ngi ko nekk di ko xasaka xaxar mais loo xam ne maîtriser woo ko. fekkee woo bul ci wax man loolu laa ko jàppee. dëgg la loolu ñu koy xas. Mm-hmm. mais. bon d' accord am na njëriñ ci réew mi de. bon bon mm, si bon d' accord dundal ay nit ah ay doomu aadama. xam nga man. Mm-hmm. man man du ma wax sax. Bougano euh, Salalaamu Nangama euh, Baaba Caam man yooyu du ma ko waaw mais sénégalais yi xanaa ñoom. ak li fi jot a xew xew. Mm, ci audio fuité yi. li fi jot a xew xanaa doo leen moytu euh, maanaam réseaux sociaux yi. xanaa doon ko moytu. bul wax réseau sociaux wax réseau sorcière laa ko tuddee. réseau eh, sorcière réseau la voilà mun naa ne la réseau sociaux ñu ngi tudd mais non mais c'est sincèrement il faut ngeen def très attention parce que da ngeen di exposé wo mën nga fi wax sax lenn ñu dem. ñu indi la fi ay problème mais sénégalais yeewu leen. te man li ma jaaxal Fatima yeewu leen. on parle de audio fuité audio fuité mais finalement ce ne sont pas des audio fuité ah. fuité wul ñoom ñoo ko parce que ñoom ñoo koy yow lay ko génne keneen ki tontu na ba saaga merci awa noonu la lay audio fuité mm-hmm. boobu loolu la wax. voilà ah, man nga nga baal kët sauvage yi pare nga. Euh, gis nga. bu <laughs> ah, ah, naas nga de. daal di bokk daal di yëg damaa yokk sama âge yi tey yokk sama âge courage. macha allah ay jumelaas <laughs> euh, mi ngi noonu yow la ñuy ngi noonu man nag euh, ni ma ko gisee gis nga référence daa am fun lay xaar. boo wàccee sa yoon rek dañ lay da ngay da yaay xeebu xam nga xeebaate amul waaye boo jëfee jëfinu ko xeebu. nga teg ko ci pénc mi des lay xeeb. Mhm. gis nga am na coow yoo xamante ni nee nañ doomu baayee koy réglé. am na coow yoo xam ne doomu ndayee koy réglé. waaye bu dee mbiru famille dem na ba génn ci pénc bam noonu ya war koo régler ci pénc rek wasaaroo nga te yaa wasaare sa néegum ndey mhm. pootum biir ci biir néeg gi lañ koy fóotee gars yi bu ñu naxante vraiment on est mhm. ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màgge te ñun ay sénégalais lañ taraanga fekk ñu fi mhm. waaye bu fekkee tey jii mer war a am moom gan dani gay moo war a mer ndax la tax mu war a mer moom la ñu jël par exemple mën nga ni wujjam ndax juddu na ci sëy juddu ñu sëy laa du suñu wax. dëgg la suñu yoon nekk si. donc bu fekkee jëkkëram am na kooku ak doom rakk moom it dane gay jëlaat ko di bokk ak Waly Seck nday ak baay ñu jëlaat kooku may ko ko kon bu mer dee war a am kooku moo war a mer. voilà non noonu non parce que. dafa dafa jaaduwul. comprendre tey ji sa doom kat yi sa doom. Euh, Hélène bu amee bu fekkee ne doo sa am na doom. Hmm. jëkkër sa jëkkëram ñëw takkaat même doomam day garaaw. mais xaar rek dafa rafetul may ma ma eggal. waaw j'ai dafa jaay ma la Sharia. moom it fii euh, xale bi tudd euh, Seydina Alioune Alioune Alioune Alioune Seck. waaw ko Waly Seck. waaw xam kan la takk. Mhm. Euh, benn jigéen benn xale bu jigéen boo xam ne. Mhm. xale bu jigéen boo xam ne. waaw bi amul bugaan doom. déedéet xale bu jigéen boo xam ne. Mhm. yaayam dafa am ak bugaan doom. doom Bougane nekk nekk jëkkër jëkkëru Momy Seck. waaw waaw il est où le problème amu ci droit xale. non non pas droit euh, musulman islam terew ko. léegi dafa am leneen lu ñu lu ñu lu ñu kii dañu ne. moom mi gisuñu ko ci ci xew bi. ci xew du dem. mais ginnaaw man ci. est euh, ce am na Momy amul importance loolu ci loolu. parce que Momy lu si yoon. doomam mooy moo takk jabar bu ko neexee mu dem bu ko neexee. relation bi waaye yaayu Momy mi nga fa il est où le problème mais et puis booy bi am na droit takk xale bu jigéen. léegi Aliou ci loolu man man fi ma bëgg ñu taxaw ah, mooy. Uh-huh. Euh, entre ay nit yuy ànd. Mhm. ay xarit wala sax ñu xam leen wala xam sa borom kër am na yoo xam ne jomb na ci kàddu. merci muy muy muy teeru ci. Mm-hmm. man côté boobu laa bëgg a taxaw. Mm-hmm. voilà loolu moo tax ba pare ba pare entre xarit ak xarit nañ ciy bàyyi xel. tey mënoo nekk sama xarit bu subaa ma sëy ak sa jëkkër wala nga sëy ak sama jëkkër. Mm-hmm. loolu dafa tilim. gis nga nit ñi li ñuy diwoo xeeñuñu ko. mais mais sëy dama la bëgg di la jeter fleur. dama la bëgg di la jeter fleur te or que tel n'est pas le cas. Mhm. loolu baaxul quoi bu fekkee dama la bëgg en fond naa la bëgg rek mais dama la bëgg te ma gisee sa jëkkër di génn ak moom rafetul mais. à une condition mooy charia terewu ko. Mhm. sa comprendre nga bu fekkee ni tey jii tey jii nga bokk ak nit ki ndey ak baay wala seen yaay yi bokk ndey ak baay nga bëgg ko ci farata yàlla ak su ma xamet cadre charia da nga koy takk. kon maanaam sëy bi dagan na ko ah, mm-hmm. amatuñu droit di xas naan moom moomi nii di xas bugaan mm-hmm. bugaan lu ko nit wax da kaa tooñ bugaan lu ko nit wax danga nga kaa sosol mm-hmm. lu ko nit wax danga kaa inventé góor la mi ngi créer emploi doon référence nekk ci réew mi nag ah, doon doomu réew mi sa comprendre nga kon donc nanu bàyyi di tilimal nit nanu bàyyi di yàq deru nit te xam ne duñu yàq ku yoru dërëm déedéet boo ñaawee. Mhm. lañ lay xas. ak ku siiw wala ku yorul. Mhm. maanaam boo boo ñaawee Sénégal boo ñàkkee. Mhm. ñu ne la ñu jégal ma ci kàddu gi dëmm nga dañ lay tooñ. léegi nag bu dee yor nga yow yow yaay euh, jaaykatu drogue bi. yow yaay yor fóot bi yow yaay mais xew bi neex na. macha allah xew bi neex na mais mais mais audio yi ñuy kii tamit bëgg naa tamit madame Mbacke waaw. ay c'est très euh, bi ñu mu jël ci ay précautions. audio yi ñuy fiite di yàq nit di enregistré nit lillahi wa rasuli président mënoo ci wax nga jël ci ndogal boo xam ne ku envoyé audio nit ñu tëj la wala a nekk noonu macha allah am na solo am na solo munaas dañu di ah. rek sëy bi barkeel yàlla voilà moom bu amee la loolu lañ ci mën a ñaan Aliou Sow temps bi bi li ñu liñ ci liñ li ñu ci gënoon jàpp rek ndax mhm. nag du suñuy cër ñu toog mhm. fi di wax ndax looy wax rek mhm. Moustapha daf koy wax souvent ci nit ngay wax mais ci li ñu mën a tënk mënuñu toog actualité bu mel noonu am ci ñoo xam ne ci showbiz bi lañ nekk ñu ci noppi ñeneen ñi nga xam ne euh, chaque jour dañu naan ay borom ñaari tour lañ ay ñeneen di def ay live à l'extérieur di xas porté fii di wax di def yoo xam ne ñooñu mënuñ leen topp ci ci ci ci duñ leen seetaan nekkul ci loo xam ne dañ cee war a wax mm-hmm. waaye li ñuy tënku fi ñuy tënku rek mooy yenn yi nga xam ne ay kàddu dafa ñaaw ci ay kilifa wala ñu ñu ah. xam ci réew mi euh, fonkoon leen loolu ñuy génn ci penc mi kooku ne xam ne ni kaaw ah, Kouthia fi mu ne ni tribunal la la teere ji ak Amina ci ay mbirum euh, audio yooyu loolu bu yeewul kenn bu dara yéene yee yee keneen mm-hmm. gërëm na solo vraiment Fatima ki dee ci euh, thème yu am solo yi boppam ñaari tur yi moom man moom ñooñu du ma bëgg sax di wax man moom personnellement du ma leen seetaan ma gisee nga xaw a am melokaan jigéen sax ñu leen du seetaan yooyu vraiment macha allah ñoom seen abi kenn laaju leen ko ñu ngi à l'étranger di expliquer. comme lay wax ñëwal rek très bien très bien merci beaucoup Fatima dañuy daal jëli suñu rubrique jonge daal di kàll léegi